xale yaa ngi ci diggi géew bi Baba Jaxal Pape Dianka Baba Jaxal moo ñëwoon ginnaaw Pape Dianka la ñu jàkkaar lool Baba Jaxal Baba Diakhal ngay seere la taake ba wala boog ndomba ga Pape Dianka ngi taxaw di ko xaar walla boog Pape Dianka ngay léemu Baba Diakhal am na lu muy wax Baba Diakhal Pape Dianka Baba ñoo ngay lewaatoo Baba Diakhal dox na ci kawam Pape Diankha wàcc na ba gën a gàtt booy xool kii di Pape Diankha moom la ñu jàkkaar lool Baba Diakhal la ñu won ginnaaw eh, ñaari pànk lanu ma ne ko ñaari pànk lanu Baba Diakhal Pape Diankha Baba Diakhal wàcc na ba tolloog moom Baba Diakhal Pape Dianka xale yi seen lewaatoo bi sax dafa waane. waay cey làmb làmb ngi noonu diggante Samsam ak Grand Dakar lañu Baba Diakhal Pape Dianka waaye li ma ci jaaxal mbokk yi mooy xaw ma jaxalu dëj la wala jaxalu lu mu doon nee daal ku ñëw joxe jaxal dem. nee na ma su ma bëree ba pare ngeen xam ne wëndëng la ma ne ko luy wëndëng mun après ngeen koy xam Baba Jaxal Pape Dianka Baba Jaxal Jaxal Pape Dianka balaa maa gën a làmb ji du am xeex am Diop andil Njaay joxal Diop andil Njaay gi namm naa ko dama namu ñu jëflante ñoom ñaar man ay mbër bu ñuy bëree bu ñu ñëwee jàppante du ma am li ma neex balaa may neex ñu weccante ku ku ne tërëf ñu dellu siwaat Baba Jaxal Pape Dianka Baba Diakhal am na trois avertissement te jàppanteegunu Baba Diakhal Pape Dianka Baba Diakhal Pape Dianka hey Baba Diakhal doon na dóor Pape Dianka juwaat ca tànk ya hey Pape Dianka ngay dóor Pape Dianka Baba Diakhal hey munu cee ñàkk munu cee ñàkk. munu cee ñàkk xeex bi dama ko cee bëgg Baba Jaxal Pape Dianka Baba Jaxal Pape Dianka nee naa dama bëgg ay mbër bu ñu jàppante ñu jëflante ñoom ñaar xeex dumante doo a bëre daa bokk ci li doxal làmb Baba Jaxal Pape Dianka Pape Dianka moo ñu woon ginnaaw Baba Jaxal la nu jaakaar lool nee naa la jaxalu dëj la wala jaxalu lan ku ñëw joxe sa jaxal dem bëgg naa xam jaxalu lu mu doon Pape Diakha Baba Jaxal Pape Diakha moo ñu wan ginnaaw Baba Jaxal la ñu lool moo tenti bopp ba Baba Jaxal Pape Diakha Baba Jaxal Pape Dianka Baba Jaxal a ngay dóor Pape Dianka dóoraat na Jaxal Pape Dianka Baba Diakhal a ngi bëgg a jàpp jàppul fenn Baba Diakhal Pape doon na ko fàq léegi Pape Diakha fàq na Baba Jaxal waaye demul fàq na ko Pape Diakha nga koy fàq mu ñëw Baba Jaxal Pape Diakha Baba Diakhal Pape Dianka Baba Diakhal Pape Dianka Baba Diakhal Pape Dianka ngay bëre lu mu ko Baba Diakhal Pape Dianka Baba Diakhal Pape Dianka Baba Diakhal Pape Dianka Pape Dianka Baba Diakha ñoo ngay door ci suuf Baba Diakhal Pape Dianka Pape Dianka na mu jàppee enjeu wul ki nga xamante ni ni mooy Baba ñoo ngay Baba looy def nii Baba Jaxal Pape Diakha Baba ngay doo ci suuf eh, Pape Diakha su doon maa yow loolu du ma ko def Pape Diakha ngay dóor jël na ko Baba jël na ko Baba Pape Diakha tegal na daan Baba Jaxal daan na Pape Diakha xoolal li Baba Jaxal li def. Baba Diakhal daan na Pape Dianka Baba Diakhal daan na Pape Dianka Adama jëlal ma Baba Diakhal Orange daan na Pape Dianka